ñu bëri ci askanu Sénégal ñu ngi laajte lan moo tax yaasin mii lépp lu mu def loo borom këram bii di Alassane mu def ko xanaa dangeen xamul lii du noob gis nga jëkkër buñ la noobee day mel ni xaj na muy toppee boromam noonee ngay toppee sa jabar tey nag ma indil leen xam-xam boo xamante ne moom la askanu Sénégal yépp di waxtaanee mel na ni preuve la ci série bile nañu dem seetaan leen te ñëwaat ma wax leen Alassane yaasin fan lañu mujjee gis nga guy gi mm-hmm. loolu mën naa ko ci def allahu akbar képp ku mu fi noobal mm-hmm. incha allahu rabbi day jàpp fii mm-hmm. li nga doon sama waaye moo tax ma indi la fi waaye fii du kenn ku ne fii ñëw da nga ma wax sànq dama da ngaa fekk ma yor liggéeyu jàmbur mooy nopp en direct laay nopp te su ma ko defee ñoom ñaar dina mel nañ caak rek sow xaj na muy toppee moroom noonu la ku góor ki di toppee jabar da ma da ngaa ñëw ma ci sama dëkk allahu ma sama nga ñëw fekk ma am lu may liggéey. la illa muy nopp. am ñaar ñu may jubóole. allah ñaar ñoo xam ni seen diggante am problème. Mm-hmm. di jëkkër ak jabar. Mm-hmm. ma leen jubóole. Mm-hmm. waaye di di leeral ni. du man lool rek laay liggéey. sëriñ bi ñu bëri jàpp nañu ni nopp kese ngay liggéey ndax maanaam guy yi fépp foo xool yaa ngi fa nopp doomu aadama ñii nopp nga leen cinq ans ñii tas nañ trois ans ak lu teg nga boolewaat seen diggante. dama koy wax. man samay nopp. du ma ko defal koy caaxaan. ndax day jàpp. allah akbar samay nopp. ku farata tax a jug. moom laa koy defal. la ilaha illallah parce que su ma ko defee ba noppi. moo xam ko góor ki moo xam ko jigéen ki la. incha allahu rabi dina ko topp comme ni xaj toppee boromam. la ilaha illallah. képp koo xam ne da ngaa nekk ci néegu sëy. mu wala nga nekk sa jëkkër. mu nay. wala sax nga bëgg nit. bëgg moo xam ku mu moo xam ko góor la wala ko jigéen. incha allahu rabi. su ma la sa tur moom bu si guy